thank you il est midi moins bienvenue dans midi plus exactement 11h47 minutes mooy doog a ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd ak télévision Futur Média merci euh, de nous rejoindre sur cette belle chaîne de télé première télé euh, fii ci Sénégal ñu ngi gërëm équipe yi nga xam ne ni ñoo fi nekkoon ci suba ak léegi euh, ci li nga xam ne ni moo di euh, Info Matin magazine bu mag boobu boobule di leen yee fajar gi ba noppi tam di leen jox ay xibaar yu am solo ñu àggali ak midi plus dans cette émission nous parlons de tout lépp la ñuy waxtaanee jëriñ ak yi leen di bëggal information ak divertissement donc c'est un magazine euh, euh, man euh, que nous vous proposons bis bi nag tey tombé na ak mardi 16 novembre 2021 16 novembre moom la UNESCO tànn jagleel ko li ñu tuddee tolérance mu ñëlante dafa am solo c'est vrai que mag ñi yàgg nañ ci tàggat ñoom nag borom xam-xam yeeg tubaab yeeg ñi nekk ci organisme yi Euh, lu ñu gis lu baax loo xamante ni fekk na euh, ñun euh, ñu yar ñu ci ci sunu réew mi ñoom itam dañu koy doxal di ko tànnal ay bis moo tax tey ñu tànn bis bi tuddee ko journée internationale de la tolérance on parlera tolérance on vous expliquera exactement baat bi lu mu wundu en tout cas mu muñalante dafa am solo voilà mu ñëlante ci xeet euh, mu ñëlante ci ay jikko mu ñëlante euh, ci ay comportement comme on dit souvent euh, di jàppee nit ñi sa bopp daf lay arrangé te dafay indi bienveillance donc on parlera de cette journée ak gëstu boo xamante ni Corombaar Ndiaye def na ko ci préparé nañu leen itam gëstu bu am solo ci coowal jaari saw xam nga fàqam gi dafa juróon daanaka émoi fii ci Sénégal ñëpp jaaxle woon daanaka sénégalais defoon nañu euh, média yëpp média yu français ak yu euh, Sénégal yi mu jógi mu feeñ euh, livre bi mu bind nag bërki démb daf ci toftal ab interview ba mu jagleel suñu ay confrères yu nekk ca France mbir mi nag daanaka jur commentaire polémique ku nekk di ci waxe xalaat moom jaari sew ci boppam indi na ay explication par rapport ak propos yi mu joxe keroog bi muy def interview pour promouvoir livre mbile mu tuddee Je pars Euh, mi ngi doon def interview bi ak suñu confrère yu AFP donc elle s'explique euh, par rapport ak propos yi nga xamee ni euh, waxoon na ko keroog et puis parmi les initiatives dinañu waxtaanee association boo xamante ni tur bi ci anglais la Never Forget Where You Come From j'espère que <laughs> j'ai bien prononcé alors ñoom nag dañoo jog ngir dugal seen loxo ci xeexuk Covid 19 coronavirus. c'est que ñun fii Sénégal sama classe gi man ak ñoom promo euh, dañoo foog ni euh, euh, pandémie bi jeex na tàkk et pourtant borom xam-xam yaa ngi ñuy ñaax ñu gën a yokk sunu farlu ci yéen ñu digaloon ñu def ko daaw ak ren muy dandante beek ñoom seen. Euh, terewul euh, am na ay nit yoo xamante ni ñu ngi ci jàpp ba tey donc parmi initiative yooyu le euh, Cheikh Diop dinañu présenter association bi la nga xam ne ni dañoo jóg ngir jàppale Sénégal ci xeexu Covid 19 bi puisque joxe nañu matériel. Euh, bu toll ci 178 milliards qui a été donc réceptionné par le ministre de la santé et puis Laba Socé xaw ma nag xam ngeen ko yéen xale yi peut-être ñun mag ñi euh, miin nañu Laba Socé oui boo waxee Laba Socé sa xel dem ci euh, salsa boo xalaatee salsa bi mu daan def sa xel dem ci ay woyam bokk na ci Aminata wala Séni alors Laba Socé moom nag mooy premier sénégalais premier africain euh, bu am disque d'or mu ngi ko am en 1981 bi mu euh, gaañoo ak léegi mu ngi bëgg yàgg loolu moo tax euh, am sénégalais bu jóg ànd ak benn Suisse réaliser un film documentaire sur l'artiste moom nag euh, mu ngi tudd Macky i il sera notre invité puisque mooy co-réalisateur documentaire boobu la nga xamee ni c'est un très grand film bu ñu jagleel kii di Laba Socé il viendra donc nous parler de ce documentaire et puis expliquer lan moo tax moom xale mu réaliser documentaire boo xamante ni Laba Socé la ko jagleel Laba Socé euh, defe naa euh, li mu bégal ci doomu Afrique euh, bëri na et puis dafa mus a considérer boppam comme Sénégambien puisqu'il est né en Gambie màggee fii ci Sénégal yàgg cartonné fii ci Sénégal donc c'est le premier Africain bu am disque d'or on parlera donc de sa carrière Euh, il est très connu très peu connu peut-être euh, ci nouvelle euh, génération bi Laba Socé et pourtant je l'ai dit tantôt premier sénégalais boo xamante ni am na disque d'or mu ngi juddu 12 mars 1943 ca Gambie il est décédé en 20 septembre 2007 man j'ai eu la chance de l'interviewer dans une de mes émissions que je faisais et jotoon nañu waxtaan waxtaan wu am solo laata muy dem donc tey dinañ ko waxtaanee ci invité boo xamante ni moo ñu nar a fekk si euh, fii ci euh, plateau bi bon il y a pas Laba Sossé moo am disque d'or on a euh, eu Euh, Touré Kunda euh, amoon nañu disque d'or oui euh, puisqu'on est en de parler du premier disque d'or africain bu di Laba Sossé on parlera de lui mais quand on parle de disque d'or on pense au groupe mythique Touré Kunda ci seen carrière jot nañu am lu toll ci trois disques d'or diggante 1985 ak 1986 jot naa leen invité mais malheureusement émission bi dafa yàqu techniquement on n'a pas pu émission mais j'ai eu à les recevoir pas longtemps l'année dernière ñu ñëwaatoon ci seen carrière mais euh, émission bi Fouras on n'a pas pu vous montrer ça mon ami toog mu Serigne Fallou euh, comprendra pourquoi on n'a pas pu diffuser cette émission. Mais puisqu'on est en de parler euh, de disque d'or donc Touré Kunda euh, ñoom ils ont eu euh, daanaka ci seen carrière ñetti disque d'or yo xamante ne am nañ ko entre 1985 euh, et 1986 il y a pas que Laba Socé Touré Kunda Youssou Ndour aussi bokk na ci artiste sénégalais yi njëkk a am disque d'or rappelez-vous de Seven Seconds mu ngi ko defoon xamante di moo di euh, Néné Thierry euh, duo la boo xamante ni euh, ñu ngi ko defoon en 1994 donc Youssou Ndour amoon ci disque d'or ça nous a tellement marqué disque d'or am boobule et pourtant du woon disque d'or bu France rek parce que dans d'autres pays Youssou Ndour amoon na disque d'or entre autres Belgique entre autres Suisse mais disque d'oru France bi itam ça a été tellement célébré qu'on a oublié ci période boobule que moom Youssou Ndour amoon na euh, disque d'or ci euh, yeneen dëkk yi c'était euh, avec cette chanson d'ailleurs ci archive yi nga xamante ne am nañ ko mu ngi seq waxtaan ak ki nga xamante ni ak waa RTS doon expliquer disque d'or boobu naka la ko amee et c'était il y a très longtemps c'était en 1900 94 on vous mettra cet extrait euh, dans euh, quelques instants et puis 1998 rappelez-vous ci la Kumba Gawlo Seck amoon moom tamit disque d'or grâce ak album bi di Pata Pata ci euh, collaboration boo xamee ni amoon na ko ak Patrick Bruel Euh, un titre qui a fait un carton euh, mu jot ci am double disque d'or voilà elle a eu un double disque d'or euh, Kumba Gawlo qui est né donc en 1972 mu ngi juddoo Thiès Euh, donc foofu ca France 98 euh, euh, bi nga xamee ni def na reprise u patapata bu Myriam Makeba ci liggéey boo xamee ni amaloon na ko ak waykatu France bi di Patrick Bruel 98 ci la amoon li nga xamee ni moo di disque d'or voilà on a eu d'autres disques d'or ci ay duo Ismaël Lo par exemple euh, jotoon na am disque d'or ak waa Bisso na Bisso euh, mais malheureusement euh, dafa ni oui disque d'or bi neex na waaye du bosam puisque nekkul ci album entier bu Ismaël Lo mais way bi mu woyoon ak waa Bisso na Bisso c'était il y longtemps amoon na ci disque d'or moom Ismaël Lo Euh, voilà il y a eu d'autres artistes Viviane il y a pas longtemps am na duo boo xamante ni def na ko ak euh, un très grand artiste français way bi mu def euh, ci duyo duo boobule amoon na disque d'or on peut en citer d'autres comme quoi nos artistes yàgg nañu sigil Afrique yàgg nañu sigil Sénégal on pense au groupe Bidéo bu bees ya y a très longtemps ñoom itam amoon nañu disque d'or et c'est des années souvenirs donc li tax ma yibbi woon parenthèse pour parler de ces disques d'or dafa fekk ni premier bi dañ dinañ ko waxtaanee bu ca kanamee ci plateau bi muy Laba Sossé on recevra Macky Silla co-réalisateur d'un documentaire euh, sur Laba Sossé il viendra euh, ci euh, jotaay bi 11h56 midi c'est dans quelques minutes vous rappelez encore que comme chaque mardi dañu ànd ak Orange mi nga xamante ni moo leen jagleel lii di méga win alors méga win mooy po mi nga xamante ni daf leen di permettre ngeen nekk millionnaire bu ngeen nekkee millionnaire ma ngeen am itam ay enveloppe yu duun yoo xamante ni da ngeen koy gagné euh, grâce ak euh, Win euh, bi ngeen di envoyé ci 22 7 22 alors tey comme chaque mardi dinañu amal tirage bu mag bi xam nga chaque mardi ci midi plus orange day ñëw ñu tiire xool ban kiliyaanam mooy gañee soit 1 million. oto wala kër et puis li ci neex nag ñu ngi jëm euh, ci euh, jeexitalu po bi puisque euh, bu ñu ko dee jeexal goroloo bi oto la oto bi ñu teg nag dinañu goroloo bi kër la plutôt voilà ñu ngi jëm ci tirage bu mag bi pour xool kan moo nar a gañee kër gi Orange Tech pour ay kiliyaanam donc daañu recevoir Euh, bu ca kanamee tuuti euh, waa Orange euh, bu ko defee ñu amal tirage bi ci kanamu huissier de justice pendant ce temps là mën ngeen a profité ci émission bi di jouer yónnee win WIN ci 22 7 22 donc méga win tey grand tirage ci midi plus bi ce sera à partir de midi 30. et bu leen fàtte euh, suukar si ma leen di xelal euh, yéen diabétique yi même ñi amul diabète mën nañu ko jëfandikoo bu ko defee ñu mën a euh, aar seen yaram ci moytandiku li nga xamante ni moo di diabète alors regardez suukar baa ngi nii sucre la tudd xàmmee leen ko ñu ngi koy jaay ci bépp grande surface ñu ngi koy jaay ci supermarché yi ñu ngi koy jaay ci yenn supérette yi lii nag suukar la boo xamante ni amul suukar voilà saf-sàpp ak la def mais amul suukar. maanaam daf lay dimbali euh, ba doo am jafe-jafe ak wopp gi nga xamante ni moo di jabet d'ailleurs démb rek jot naa cee def focus euh, ci midi plus bi puisque bërki démb lañ doon célébrer bis bi ñu jagleel euh, jabet ci dëkk bu ñu naan Ndar donc je vous conseille de d'acheter li nga xamante ni moo di Sucria ñu ngi koy jaay un peu partout à travers Sénégal ba noppi itam am ngeen possibilité bu dee gëmu leen li may wax ngeen dem ci site internet bii di www.sucria.com suukar si baax na li neex nag mooy bu la neexee nga suukaree ko sax sa ataaya parce que daf lay aar dafay tax nga euh, boo dee lekk ñamu suukar sax doo ci euh, doo ci am feebar et euh, ataaya bi ma leen di digal nag bu ñu bu ñu demee ba ca kanam boo di 14h ngeen def seen trois normaux ba tarxiis sax bu leen neexee ataaya baa ngi tudd gaynde te gaynde nag moom daanaka sakkan na du sàlli du gaaw a sàlli bu la neexee ataaya ci dix fois ci benn bis ba pare dafa sakkan am na qualité donc te gaynde mu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex euh, ci euh, télévision Futur euh, Média ñu ngi ànd itam ak Soumari bu dee da ngeen soxla ay bagaasu kër moo xam téléviseur moo xam machine à moo xam euh, machine à café euh, moo xam lépp lu jëm ci wàllu électroménager mën ngeen ko am soit euh, ci site internet bu sumari di www.soumari.com wala bu leen neexee ngeen dem ci showroom yi nga xamante ni ibbi nañu ko pour bégal clients yi ba noppi itam ñu ngi toll ci jeexitalu 2021 donc sumari tàmbali na dès à présent di def li nga xamante ni moo di promo spéciale fin d'année donc en gros Euh, programme baa ngi noonu xanaa ñu jël euh, li ñuy remonté woo rek bu ñu xëyee euh, maa ngi hésité entre Youssou Ndour ci bandam bu bees bi nga xam ni mën ngeen ko jënd désormais via seen calpe orange monnaie c'est très simple xam nga calpe orange monnaie moom bu dee kaaraange mooma bu dee moins cher mooma c'est vrai que njëkkante bi bëri na waaye defe naa xam ngeen ni njëriñu xam ngeen njëriñu seen calpe orange monnaie donc désormais pour acheter l'album Euh, ak Orange Money et recevoir le lien de téléchargement en qualité studio euh, da ngeen di ibbi euh, seen application photo et puis ngeen scanner QR code bi nekk ci seen application Orange Money ça vous permettra ngeen am album Youssou Ndour bi di mbalax nga xam ne bi mu génn génneek léegi mu ngi. Euh, def euh, euh, carton xam naa nag mool moom mënul ñàkk démb rek jot nañ cee fecc waaye tey itam mënees sañ cee fecc tuuti ci ndimbalu équipe yi ci ginnaaw mool bokk ci album bi ngeen mën koo jënd via Orange Money nañu ko déglu féexal xol yi am lu ñu ambiancé doog a tàmbali sujet yi ñu leen préparé tey en attendant midi puisqu'il est enfin midi pile mooy doog a jot donc midi pile mool pile Youssou mbalax tell my fancy, yeah. mooyee ci gën a daal ah mooy a gën a daas mais may ma benn CD moo gën a rafet euh, au moins ngeen di jënd ay CD di ma romb quoi c'est-à-dire ñu ngi ñëw euh, buntu TFM di jënd ay CD di ma romb dañu foog ni man am naa CD mais man amaguma CD ah il faut ngeen may ma CD non je blague CD bi maa ko njëkk a am rappelez-vous vendredi passé avant avant avant deux heures man yor naa sama bande et si seulement si tout va bien euh, dinañu am grand bal ren le 25 décembre incha allah si seulement si moom Youssou ko wax am na lu mu àndal si seulement si ah yàlla baax na espérons que d'ici ak le 25 tout ira très bien ci fànn yëpp ci Covid beek ci wérgu yaram yeeg moyen de dee tout ça yooyu yëpp daal euh, nanu ko ñaan suñu borom mais daal euh, Youssou jàpp na datam ñaari dates yi le 25 décembre ak le premier er janvier le 1er janvier nag xam naa ce sera le très grand bal ndax nag euh, bi ñu ma waxee fi ñu ko nar defee ca Dakar Arena ba sama xel dafa dem ci salle mythique bu mag boobu la nga xam ne Youssou tax ñu xam ko muy Bercy ñun ñaare. Euh, daanaka retrouvaille la musa nekk foofu ca Paris waaye nag ren dina ñu dund ambiance boobu ci stade bu mag boobu nekk boo di boori Diamniadio di euh, Dakar Arena si seulement si et on prie euh, pour que tout aille bien en tout cas bi mooy sama way coup de cœur euh, dina jàll en boucle ci euh, télévision Futur Média surtout ci Midi Plus bi saa yu ma xëyee rek laataa may tàmbali quoi que ce soit moom laay léemoo mool bi ma léemoo nag maa ngi ciy nuyu mool yëpp boo demee Gét Ndar Youssou wax na ko bël ba ca Ndar. Euh, sonal na waa géej ndar géej bël mooy embouchure defe naa noonu la ko euh, euh, tubaab tuddee Abdou Guité woyoon na bël bël ba ca ndar nag sonal na waa git ndar géej géej ndar googu ci boppam ñu ngi leen di nuyu eh, di nuyu waa goxu mbàcc eh, Pikine mbaa Sénégal sama dëkku maam eh, Balakos ndar gépp ñu ngi bég ci yéen di bégal itam waa yu géej ñoom it ay moolo nga fa te ñu ngi doon ay jàmbaar xam naa ni ku ciy dem maare wala ngay dem géej rek di nga yóbbaale déglukaayu musique yooyu ñuy jaay ci biti baaful la tudd xaw ma yu ndaw yi pour di déglu di napp ndax woy wi seen woya te Youssou daf leen beral loxo ndax na woy na ndox woy na mool te njëriñ li ci ndox wax na ko ci euh, clip bi ngeen gis euh, mu génn keroog euh, ngeen di ko seetaan souvent ci télévision Futur Média on mettra peut-être cette chanson bu ñu amee jot mais en tout cas on parlera de de programme yi mu jàpp le 25 ak le premier xam naa ci fan yi bu confirmation yeeg yëpp taxawee information bu ma ci am rek. je ferai le maximum euh, pour euh, partager ko ak yéen on vous souhaite une très bonne journée et on souhaite un bon anniversaire aux natifs de ce jour képp koo xamante ni euh, tey mardi 16 novembre mooy sa anniversaire ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér damay faf maas nuun gi rek maasaale ci képp koo xam ni rek tey la sa anniversaire on te souhaite beaucoup de bonheur et puis tey 16 novembre mooy journée internationale de la tolérance tolérance nag mooy bienveillance daanaka muñalante nit day muñal day muñal moroomu nitam parce que kenn gënul kenn uute yi ci liggéey yi yàllaa ko def uute yi ci euh, classe sociale yi yàllaa ko def uute yi ci jëmm yi yàllaa ko def uute yi ci xel yi yàllaa ko def uute yi ci couleuru yaram nga xees mu ñuul yàllaa ko def uute gi ci bët yi yàllaa ko def sa à dire différence yi ci àddina yëpp suñu borom la réew mi nag wala àddina dañoo toll foo xamante ni Euh, am na ci ñu gàtt xel ñoo xamante ni bu leen suñu borom wërsëgalee sax as dañuy foog ni seen ngóora la ba mën nees nañ cee xeeb yooyu yëpp nag bokkul ci euh, tolérance manque de tolérance muy indi ay xeex manque de tolérance muy indi ay guerre manque de tolérance muy indi incompréhension ba kenn du jubóoti gis ngeen réew mi léegi daanaka menace menace menace les nerfs sont tendus parce que tolérance moo xaw a manqué ci gëm-gëm sax dañu war a muñalante li ma gëm ak li nga gëm c'est vrai que Youssou nee na il faut pardonner mais balaa ngay àgg ci ñu lay tooñ ak ngay fayoog di tolérer di baale wala di pardonner na nga tolérant il faut tolérant c'est important du ma borom xam-xam je donne pas leçon waaye dafa tombeek bis bi rek moo tax ma ci commentaire li ma xam te gëm ko man dàngin gi njaay man kanfoori <laughs> man borom déclic man kanfoori kankan bi donc pour cette journée soyon très vigilants ci sunu rapport ak nit yi damay toilette ñoo toog ci télé bi ñu puudar ma bu ma génnee ça ne veut pas dire que man maa gën nit yi voilà il faut que euh, bienveillance am tolérance am xeebeel bañ a am dafay tax jàmm sax donc pour cette journée qui a été décrétée euh, par l'UNESCO Euh, elle est célébrée depuis 1996 bokk na ci vertu yi vivre en société et de s'accepter c'est très important loolu mooy euh, bis bi tey euh, prix wu tolérance nag dañu koy décerner ay nit chaque année am na gëstu ak explication yoo xamante ni Corombaar Ndiaye lañ ci àndal. tolérance wala jëlale ñu bëri jàpp ne nag bokk na. ci ay jikko yu mën a tax ñu mën a dundu ak doomi aadama yi jëlale dina dem sax ba tax nit nangu loo xamante ni xëj na du ko gënal wala mu nangul nit ay doxalin yoo xamante ne wuute na ak yosam bokk ci li ñuy boole ci suñu ay valeur morale sociale waaye itamit tolérance googu wala jëlale dinañ ko fekk ci yeneen anam ba tax ñuy wax lu jëm ci wàllu tolérance politique tolérance ci wàllu droit naka noonu euh, tolérance civile ci wàllu société nag day am solo euh, ku nekk ci doomi aadama yi mën a bàyyi xel ci lu jëm ci wàllu jëlale lu ni mel sax dina bokk ci liy tax ku nekk mën a nangul sa morom yu bari bés bi nga xamante ne moom la ñu ko jagleel fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre at mu jot ñu di ko màggal atum 1996 la tàmbali UNESCO taxawal ko ngir rek ñu mën a nangu richesse waaye itamit diversité bi ñu am ci wàllu culture di aada ak cosaan ci àdduna warngal këpp waaye nag ci nekk itam gi ñu nekk doomi aadama ku ci ne am nga sa façon ngir dund naka noonu sa façon ngir fësal moo xam li lay neex ak li lay naqari ku ci nekk nag mun ko nangul sa moroom jëlale di tolérance moo koy maye ngir dara jaal darajaal atub Nations Unies eh, bi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllu eh, tolérance ak téeméer ak ñaar fukk ak juróomeeli anniversaire bu juddug Mahatma Gandhi UNESCO daal di créer ab prix ngir rek daal di gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllu tolérance ak non violence ci àdduna boobu le raaya sax ñaari at yu nekk la ñu koy daal di joxe ci bés bi nga xamante ne moom la ñuy màggal wàllug tolérance prix boobule mën nañu ko jox ay institution ay organisation wala sax ay doomi aadama yoo xamante ne ñu ngi dox ci lépp lu jëm ci wàllug tolérance ak non violence Voilà, donc c'est une journée qui est célébrée euh, chaque année depuis 1996. Elle a été décrétée euh, par euh, l'UNESCO. Merci euh, Thioro Mbar Ndiaye yow toléré la moo tax ñu yàgg ndax bu ma la toreelul toléré <laughs> bu ma toléréwul woon sa dotom kon heure bi du ñu yàgg mais toléré la moo tax euh, vraiment ñuy ànd sama rakk ji Amadou Ndiaye Mbisaan Ndiaye Mbisaan Ndiaye Mbar Ndiaye Jogomaay yow ku ma xool ci yow mere ma te loolu yëpp tolérance la lakkale nga. dotom nga ŋàppaaral nga mais je colère moo tax ñuy ànd moo tax ñuy liggéey ci mi Midi Plus may feeñ nga ne ci ginnaaw di bind di reportage di coordonner voilà ça ça s'appelle tolérance Pape Samba mi réalisé par exemple xamul leen ko yéen ñii seetaan mais ku doy waar la waaye tolérance a tax ma ànd ak moom dafa garaawaale tuuti ngalaxtaan la teetee laa ko tuddee tuuti tànk Coro Mbar Ndiaye tu tu comprendras waaye euh, xale la boo xamee ni dama ko toléré donc tolérance c'est très important il faut que ñu ñu ñu ñu ñu ñuy muñalante voilà muñalante dafa am solo muñal ko comprendre ko ndax suñu borom moo ñu sàkk ba pare ñun ñëpp ñu ute ku nekk ak sa xel ku nekk ak sa xalaat ku nekk ak niñ la yare ku nekk ak fi nga jógee donc nañ ci bàyyi xel vécu yeeg ñoom seen c'est très important il, il nous arrive par exemple fii Sénégal euh, ñaare dañuy kaas da ngay dem ci bërëb boo xamante ni ñoom dañuy soxla ay clients mais quand tu entres da nga fay fekk ay nit yoo xamante ni façon bi ñu lay nuyoo. rek yow da ngay da ngay xeeb sa bopp da ngay mer et pourtant ils ont besoin de clients quoi genre je donne pas d'exemple mais ñun ñëpp on a eu à vivre ça quoi c'est-à-dire façon bi ñu lay toisé di la ko làkk tubaab te léegi réew mi seen arme mooy genre jàng naa wala dégg naa tubaab wala dégg naa anglais noonu la ñuy tuutilee nit ñi oui qu'est-ce que vous voulez oui attendez là-bas monsieur attendez là-bas d'accord il y a pas de s'il vous plaît il y a pas de merci y a pas de bienveillance il y pas de tolérance donc tolérance bi euh, nañ ci am euh, nañ ci bàyyi xel parce que ci jàmm yàlla la bokk donc merci en tout cas pour ce gëstu ma très chère Thioro on va continuer avec euh, d'autres sujets yoo xamante ni préparé nañu leen ko on parlera de l'affaire Diary Sow oui moom ginnaaw bi mu ñibbee bi mu delloo France dafa génne livre am tuddee ko je pars pour promouvoir livre boobu le nag euh, jot na def interview ak suñu ay confrères yu AFP lam ca wax yal lam ca wax nag ñu bëri dañ ko naqarlu waaw ah, xam naa je vous de baré ca ca ca je bala na mu ko waxee c'est pas mes propos ah c'est Diary qui l'a dit moi j'ai vu ça euh, sur les réseaux euh, sociaux donc moom elle explique quand même ses propos euh, dinañ ci ñëw dans quelques minutes ak ki nga xamante ni moo di Euh, Marcel Farba euh, Maroun mais à propos des réseaux sociaux xam ngeen ni chaque jour ci mi biir Midi Plus dañ leen di proposer li xew biir internet ak euh, Mamadou Ndiaye qu'on retrouvera tout à l'heure enfin qu'il est déjà là <laughs> Modou démb colmaaw nga def tey costume nga maye. c'est da nga may toléré rek da nga may toléré rek. waaw waaw waaw wax nga dëgg quand même maa doon joxe ay conseils léegi. voilà wax nga dëgg wax nga dëgg. kon da nga may toléré rek. wax nga wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg de. Eh, da ma rek. yàlla baax na ma ma tolérant. waaw. ah bale yaa ngi say loxo toog nga ci table bi. oulolo oh, TFM nag TFM nag TFM nag maa ngi doog a comprendre li tax xale yi ne ci yeneen télé yi sonal ma pour ñëw fi TFM nag xam nga ñoo fi woon nii de. Uh-huh. nii nii nga leere nii. nga def sa costume nii waa léegi sa loxo yi doo ko kii nga yaru tuuti. waaw maa sa loxo yi. nga écarté ko téye ko téye loxo yi. acca waaw na kepp ko kepp ko. wala ma def nii. bul pour gën ko kepp. voilà wàccee say loxo. très bien voilà quand même. <laughs> tolérance rek. non seen naa naata léegi ci mbedd bi ma ngay wiccax tubay jànga dang mu ngi sànni caabi oto bi ma ni ciy téye fa moo neex naataa nga surbise waaye it yaa ngi surbise ak sa costume eh? démb col mao tey costume Cheikh Diop ba ngay photo wu <laughs> Fatou ngay musóoru ah. waay Fat Bintou sax a ngi ci biir. bilaay man mosuma gis lii. merci groupe Futurs Médias rek. Bouba Ndour sax léegi day sol ay ci fermé. lii lii lii c'est grave ah. c'est grave bon on n'est pas là pour parler de ça loolu nga may won mais grawul bon on parlera de euh, Photolab Challenge. oui ah c'est c'est c'est c'est ces photos genre dessin que tout le monde partage. Mm -hmm. et itam ak yow naka la ñu mën a monétiser chaîne YouTube. Mm -hmm. ça risque d'intéresser euh, Pape Lam. Uh -huh. et ñëw itam ci éliminatoire coupe du monde zone mhm. Afrique. lépp a ngi xewee biir internet nag. voilà euh, El Hadj gannaaw bu ma la nuyuwee nuyu euh, téléspectateurs yeeg internautes yi ni nga ko waxee noonu lay euh, demee dinañ waxtaanee mbirum YouTube xam naa dina intéressé lool ñii di youtubeurs yi mais surtout nan la ñuy monétiser parce que questions yoo xam ni saa su ne internautes yi dañu koy posé xam nga lii xew ci internet bi saa su nekk internautes yi am nañu possibilité interagir maanaam poser seen ay questions questions yooyu nag tànn nañ ci tey benn boo xamante boo xamante ni waxtaan nañ ceeg borom ku ci koo xamante ni xam màcc na ci mu ñëw fas yéene expliquer nan la ñuy monétiser nan maanaam nan ngeen def ba euh, gagner koppar gu am solo ci YouTube ci kanam dinañ ci ñëw dinañ waxtaanee actuellement euh, benn sénégalais boo xamante ni euh, ci éliminatoire coupe du monde yi nga xam ne ñu ngi koy joue fii ci zone Afrique màgget Ndiaye moo doon arbitré benn match Afrique du Sud Ghana fi mu ne nii ci internet amul frontière fépp ci Ghana diggante Ghana Afrique du Sud mooy def buzz polémique bi mu créé mooy benn penalty bi mu sifflé ci kanam dinañ ci ñëw ak tolli bi mu def ci euh, toile bi dinañu waxtaanee tamit actuellement challenge bi mooy photolab challenge El Hadj fi mu ne nii loolu mooy challenge bi xew fi mu ne nii ci réseaux sociaux yi. rawatina Sénégal soo bëggee sax ma defal la benn en direct ah. ah bon sa sa sa photo laay jël daal di koy def photo lab. acca ah, defal ma ma xool. acca ah, war ñu ko ma koy def en direct nii ak euh, réalisateur bi. mu euh, xaaral mu téléchargé léegi ma jël sa benn photo xam nga li ngay photo dafa bari. ak ah, j'ai vu plein de gens di ko di ko partagé man kay damay photo di vidéo. mi ngi noonu. Bijou Ndiaye barki dem nee ma yow sa vidéo yi ngay wane ci sa statut yi fajar gi lan la ma ne ko c'est mon journal de bord soit tu regardes ou moo tax may choisir sa benn photo léegi nii. Hmm. daal di koy photo lab. allez defal ma photo lab. tu demandes si c'est joli euh, ngi noonu. ah je suis beau. <laughs> oh là là quelle bolure. <laughs> quel boole maa nuru sama yaay nag. Eh. xam nga yow Maodo Ndiaye man sama yaay dafa rafet. waaw macha allah. moom laa nuru. <laughs> xam nga sama ree ji sama ree ji du du du n'importe quel ree de. Uh-huh. ah là là yox <laughs> après nga partagé. xel bu partagé ngay wax ndànk <laughs> Pape Cheikh Diallo univers YouTube Snapchat Stringrad beneen bi Snapchat. Euh. Euh, TikTok partout je partage ah. incha allah moi je me réveille je me filme je partage. ok voilà je partage mon journal de bord avec euh, avec ma communauté. incha allah voilà donc challenge baa ngi noonu. Uh-huh. et puis on va retrouve uh-huh. on te retrouve tout à l'heure pour lu xew biir euh, uh-huh. euh, sinon euh, Diary Sow extrait wu interview mu defoon ak suñu confrère yu AFP def na tollé ah ci réseaux sociaux yi. ba kenn ku ci nekk di ci commenter. d'ailleurs on a tellement partagé photo bi nga xamee ni def na ko ak kii am prix Goncourt bi di Mbougar Sarr y en a même qui disent que ces deux là c'est des c'est mais de toute façon kenn ku nekk mu ca xalaat moom Diary saw ci boppam euh, joxe na ay explications par rapport ak euh, euh, propos yi nga xamante ni ñu bëri dañuy jugé woon ni c'était des propos yu xaw a metti ci ay nit yoo xamante ni bi mu réeree ñoom ñëpp jóg. Euh, def euh, mobilisation donc cette affaire euh, on vous explique lan moo tax mu ngi jëmoon nag ci promouvoir livre bi nga xamee ne génne na ko tout tuddee ko je pars on vous explique tout ça ak ki nga xamante ni moo di Marcel Farba Marone. Diary Sow indi na ay leeral gannaaw critique yi dal ci kawam ba mu defee interview waa AFP muy fàttali ci Twitter ni ko ba muy naan je vous emmerde ñi nga xamante ne dañ ko doon saaga. te joxewuñu seen identité ñooñu la ko jagleloon mu doon benn façon pour moom ngir régler ay compte ci ñaareelu livre gi mu génnee tuddee ko je pars te mu génn le 4 novembre bii passé gannaaw livre bu njëkk bu tudd sous le visage d'un ange bi génn 2020 waaye ñuy si ci circonstance yu jiitu boobule polémique ñaari yoon lañ ko daal di primé meilleur élève du Sénégal ci concours général atum 2018 ak 2019 ci fi nekkoon élève foofa ca Kër Major Mbuur wala bokk lycée scientifique d'excellence bu Diourbel daal di dem France foofa ca Paris ñu admettre ko ci weeru septembre atum 2019 classe préparatoire scientifique ca lycée Louis le Grand pour mu jàng fa physique chimie ak ingénierie ñeenti fan ci weeru janvier bii boobu boobule lycée daal di signalé ne Diary Sow ñëwul ci cours yi loolu daal di indi jaaxle fii ci Sénégal ak sax ci bitim réew brigade de répression de la délinquance à la personne daal di tijji l'enquête foofu ca France waaye police française daal di rek écarté hypothèse u enlèvement ñaar fukki fan ak benn ca weeru janvier atum 2021 ki di pare am nekk Serigne Mbaye Thiam daal di publier benn lettre te jaari Sow di ci fàttali ne demam goobu da koy daal di def ci coobareem ca Amsterdam capitalu Pays-Bas la nekkoon balaa muy dellu Sénégal fin janvier 2021 ca weeru mars atum 2021 mu daal di feeñ feeñ bu njëkk gannaaw boobu boobule épisode ci benn forum bi nga xamante ne institut français bu Saint-Louis moo ko daal di woon organisé depuis date boobu benn nouvelle amatuñ ko woon ci Diary Sow bala octobre 2021 ak révélation bi suñu naataango waa immédiat daal di def bu ñu sukkandikoo ci ñoom Diary Sow dafa dellu ca lycée Louis le Grand bu Paris gannaaw ba ka Arouna Dia benn homme d'affaires bu am alal fi ci Sénégal daal di ko ciy jàppale mu ngoog merci Marcel pour ses explications jëm ci euh, euh, coow li ñu tuddee affaire jaari saw donc elle s'est expliquée par rapport ak propos euh, yi mu génnee ci interview bu mu doon defar ak suñu confrère yu AFP ñu bëri dañ koo naqarlu mooy moom elle dit da doon tontu ñi nga xam ni peut-être ñoo ko doon saaga te xamul ñan la waaye Sow pour la ñooñu jaruñoo faale boo defee lu baax ñu saaga boo defee lu bon ñu saaga donc yoo neel pat rek tey bind ses livres yàlla boo réeraat na ndax xam naa ne boo réeraatee moom man damay jàpp sama njàmbur rek dama ciy maandu looy jël comme sa bëñ buy metti da ngay ŋaawee may ŋaaw sama ŋaaw sama sama sama gémmiñ gi rek dina mel ni bu ñu naree takk coro mbaar duma du commentaire de loo ci xam loo ci xalaat chauffeur yi pas de commentaire jaari nag yàlla boo réeraat mais bon de toute façon euh, son livre est sorti et mu ngi ko tuddee euh, Je pars elle est en train de promouvoir euh, son bouquin et euh, voilà de toute façon mu ngoog ñu ngi euh, euh, koy ñaanal euh, suñu borom taxawu ko ndax quand même ci doomi réew mi la bokk e li ko yóbbu mooy bokk na ci meilleurs élèves yu nekk fii ci Sénégal donc merci Marcel pour ces explications midi 25 mooy doog jot ca kanam daañu waxtaanee Laba Socé dafa am xale boo xamee ni dafa co-réaliser un film documentaire ci ki nga xamante ni moo di Laba Socé puisque tous les jours nous recevons. Euh, ñi nga xamante ni euh, ñoom laa tuddee ñi indi autorail bi arrivé waxtu ces trains qui arrivent à l'heure euh, moom Macky Silla il en fait partie donc il a co-réalisé un film documentaire sur Laba Sossé premier disque d'or africain pourquoi Laba Sossé dina ci tontu pourquoi ce documentaire dina ci tontu c'est vrai qu'il fait le tour des médias bu yàggul rek seen naa ko Euh, ak sunu ay confrères yu TV5 si je ne me trompe ou France 24 de toute façon il viendra euh, ci télévision Futur Média pour nous en parler la Socé euh, El Divocio bokk na ci ay woyam yu siiw on mettra ça ci kanam tuuti pour bégalee leen ko en attendant ñu ñëw ci initiative yi bokk na ci association bi tudd Never Forget Where You Come From Euh, muy association boo xam ni dafa ñëw euh, jóg ngir jàpp ci li nga xamante ni mooy xeexu euh, Covid 19 bi mu joxe loowu matériel bu toll ci cent soixante dix huit milliards matériel bi nag ministre ministère de la santé jot nañu ko réceptionné ci kanamu Cheikh Diop. mu mel ni taxaw xeex li nga xam ne moom moo di coronavirus dal nañ koy amal. lépp lu ñeel wàllu jumtuwaay ñu mën ci ràññee lu ci mel ni ay chaise roulante ay blouse ay gants ak yeneen jumtuwaay yoo xamante ni ah, mënees na koo jëfandikoo ngir gal li nga xam ne ah, moom moo di coronavirus. ñu gis ne hôpitaux yi dañ soxla dimbal ah, ñu ñu dajale matériel bu nekk États-Unis si benn hôpital bu nekk foofu tudd Baylor Scott ak suñu collaborateur bu tudd Mamadou Diène Euh, ñu contacter association bi ñuy wax euh, ànd xeex cancer fii xool daal ne euh, mënoon mën nañu def benn action boo xam ne dina dimbali hôpitaux yi fii donc ñu def benn don ay matériaux principalement matériaux chirurgicaux d'une valeur de 178 millions Euh, loolu nag euh, dañ koy distribuer après si ay ay hôpitaux. mu nekk aw initiative boo xamante ni ministère de la santé mi ngi koy rafetlu bu baax a baax naka noonu itam muy sàkku ci askan wi ñu woyal sensibilisation bi. li ngeen def di leen ci gërëm di leen di féliciter itam ñu bañ a jàpp ni fu ñu toll ci wàllum xeex bi mbir bi xaw na wàññeeku ñu bàyyi ndeku xeex bi dafa war a wéy ba feebar bi nu mu jugee fii. association Never Forget Where You Come From daal di taxaw temb duga yoxoom ci li nga xam ne moom moo di guerre bi mu mel ni itam lu ni mel bëgg na cee jàppale gouvernement bu Sénégal. suñu objectif mooy euh, dimbali euh, que ce soit si domaine u santé bi mais domaine u éducation yi surtout éducation xale yu jigéen ñi donc. Euh, Euh, suñu association bi Never Forget Where You Come From mooy euh, bul fàtte mukk fi na jóge association Never Forget Where You Come From euh, taxaw ngir rek jàppale bépp kër docteur woo xamante ni mi ngi fii ci réew mi bëgg-bëggam bokk na ci daal di fexe askan wi di am paj mu mucc ayib merci euh, Cheikh Ngoné ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ci euh, loolee nga fekkee jëm ci loo matériel bu toll ci cent soixante cent ñaata milliards bëri na de cent soixante dix huit milliards oui cent soixante dix huit millions plutôt maanaam milliards depuis sànq ba tey maa ngi wax milliards maa la j'ai pas porté mes lunettes bët yi baaxatul xam nga booy magal yëpp ngay am ay myope ay cataracte ak yeneen ak yeneen. Euh, mais bon, euh, j'arrive quand même à lire. Donc 178 millions euh, euh, mooy valeur matériel bi nga xamante ni euh, ministère de la santé réceptionné nañu ko donc ñu ngi gërëm bu baax association bi di Never Forget Where You Come From. Euh, lii rek la ñuy doyee euh, ay citoyen moo xam yu nekk ci réew mi wala yu nekk ci bitim réew ñoom nag fàttewuñu benn yoon fi ñu jógee muy Sénégal ñu yëkkati loo matériel bi euh, jagleel ko Sénégal jox ko ministère de la santé noonu la amee itam yeneen i association yu nekk un peu partout à travers le monde dangay ngay dem bitim réew fekk fa ay doomi Sénégal yoo xam ne xam nga lan mooy seen passe-temps di dem ci organisme yi dem ci hôpitaux yi pour xool lan lañu leen mën a may pour ñu indi ko fii ci Sénégal voilà je pense à la euh, fondation 221 ak suñu xarit Moussa mu ngi nekk États-Unis moom nelawul benn yoon euh, pour di jàppale euh, hôpitaux yu nekk Sénégal ak hôpitaux yu nekk euh, Mali fondation 221 il y a d'autres associations yu nekk France association yu nekk yu nekk yu nekk ci dëkk yu bëri boo demee France par exemple bëri na ci ay lakkat yoo xamante ni dañuy wut ay matériaux yu baax ay ay lalu hôpital ay ay chaise roulante ay bagages yoo xamante ni euh, peut-être duñu koy gis ci suñuy bërëbu fajukaay ñoom nag dañu koy lijjanti xeex fay duwaan dugal ko ci ay conteneurs indi ko yóbbu ko ci seeni dëkk. loolu nag c'est des initiatives yoo xamante ni ñun dañu koy saluer tout le temps moo tax on s'est dit pourquoi pas Euh, ñu partagé leen euh, ñu partagé ak yéen euh, lii nga xamee ni association bi di Never Forget Where You Come From def nañu ko ngir xeex lii di Covid 19 en tout cas ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay bi ak nii ñu fonkee Sénégal midi 30 pile c'est parti pour le grand tirage méga win comme ni ñu koy amalee chaque mardi ci télévision Futur Média non non non on met ça parce que c'est comme ça que ça se passe Thioro dis-leur ça télévision itam dafa am yoon on met ça le temps ñu dem taxaw. fële ak ñoom euh, pour ki nga xame ni euh, moo gagné euh, moo gagné xaaral ma xool gagnant yi parce que chaque semaine Orange dafay def millionnaire voilà millionnaire de la semaine et puis chaque jour nga mën a gagné cent mille ñu jaarale ko ci sa compte Orange Money donc je vérifie euh, Mamadou Fall euh, qui est donc le représentant du gagnant millionnaire de la semaine monsieur Diba et euh, ñu ngi jëm nag euh, ci tirage Villa Kalia bi euh, dina am tirage bu mag boo xamante ni dinañ ko amal pour xam kan moo nar a gagné kër gi nga xamante ni Orange def ko teg ci po bi di méga win donc win ngeen di yónnee WIN ci 22 7 22 donc bu fekkee équipe bi pare nañ ci ginnaaw ñu teg gagnant bu kër gi ki nga xamee ni moo gañee kër. Euh, ci méga euh, Megawin bu daaw c'était magnifique ni ñu joxe kër daaw noonu rek la Orange di joxe waatee kër mais kër gi nag kan moo ci nar a dal on ne sait pas encore on retrouve le euh, précédent gagnant de cette grande villa offerte donc par Orange mi nga xam ni jógul benn yoon ci ci di sargal ay kiliyaanam mënoon na yemale ay yëfam ci ay promo ci ay maye crédit waaye dafa jël ay cadeau yu am valeur di ko maye cent mille par jour un million par semaine oto bu yànj nga xamee ni pour nga am ko il faut des millions kër ku ne xam na ni ñun buñ dee kër kër yi bëgg nañoo am kër mais orange jël kër teg ko ne pour client yi la loolu nag bu ngeen ko bëggee da ngeen di jouer tout le temps ak euh, seen jeu méga win win ngeen di yónnee WIN euh, ci 22 7 22 tirage bi encore ñu koy amal ci kanamu huissier de justice kan moo mus a gagné kër. Euh, bu Orange teg rappelez-vous l'année dernière il y a gagnant boo xamante ni Orange ci boppam moo ko jox kër gu bu dëkk. salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan euh, ñu ngi leen di ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant euh, ah ñu ngi ñëw ak yéen ci seen jeu concours méga win tey ji mooy final bi tey ji lañuy joxe. ngandam maa mi guro loobi kan lañ koy jox ñan lañ koy jox di ngeen ko gis parce que dañuy ànd ak yéen tout le long du trajet nan lañ koy joxe dinañ ànd ak yéen ci kër gagnant bi ki nga xam ne moo gagné na lu punkal li noo ngay dem këram tabarkalla ma allah dem yóbbu ko ca la mu gagné keneen ko fee tur bi ak sant bi. Euh, Ababacar Diop Faye. Ababacar Diop Faye. yëg nga ni am nga loo ko def. kan jam ñu woon la de. suivez-nous. seen ay 1 million ñi jot jakartaay jot nañu jakartaay te ngeen gën a bokk nag parce que 2021 bi gis nga wax nañ leen li nga xam ni moo ci am lépp 2021 bi kon nag tirage bi décembre lay doon ngeen ñëwaat fii ñu yokkaat suñu loxo ndax ñun at mu jot lu ñu def ren dañu yokk suñu loxo déwén ba ca topp. Megawin toute l'année 2020 chaque semaine chaque jour des lots avec des milliers de clients qui nous ont fait confiance et qui ont joué donc Megawin partout au Sénégal c'est accessible donc nos milliers de clients qui nous ont fait l'honneur de jouer cette année. Donc, euh, euh, viennent de toutes les régions, les 14 régions du Sénégal. Donc, Sonatel, Orange, ñëpp la fi nekkal. bésu tey bi daal yaramu ñëpp daw nañu. te ñoo bàyyi le directeur tekki ko waaye da nga ko yow ñeme nga koo tekki. man ndox bu sedd laa koy jot. kontaan nañu trop si partenariat bi ñu am ak euh, Sonatel euh, di féliciter gagnants yëpp nag wax dëgg yàlla euh, surtout Babacar mi gañe kër gi. ñu ngi koy féliciter bu baax a baax gañe na kër gu baax macha allah kër goo xam ne Kalia daf si daf si réfléchir pour mettre à l'aise la famille sénégalaise. Sénégal yokk euh, merci Orange jërëjëf Orange jaaraama Orange di di santaat bu baax a baax a baax ak euh, seen partenariat bi di Kalia jeu bi Mega Mega Win la tudd 22 7 22 la c'est vrai c'est vrai parce que début bi gëwuma ko woon mais bu ma ñëwee fii tey caabi jaa ngi caabi kër la. Orange mu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seen fidélité yéen clients yi loolu ngeen gis léegi euh, mooy euh, gagnant kër gi daaw kër la boo xamee ni nag euh, mu ngi ci dëkk ak njabootam ñu ngi koy félicité ren itam Orange dolliwaat tollantiwaat. tegaat loxoom ci ay kiliyaanam ci sénégalais yi parce que euh, Sénégal yëpp amul kenn ku nekkul abonné Orange euh, la preuve euh, bi ñu tàmbalee po mi ba tey yéen a ngi jouer di continuer di jouer am na ay astuces yu am solo yoo xamante ni chaque semaine ñu jox leen ko muy turbo bi ak Mamadou Ndao et ses équipes gagnant yaa ngi fii tirage bi comme chaque ji dañu koy amal ci teewaayu huissier de justice félicitations encore à tous les gagnants tey itam Orange dafay defaat millionnaire waaw Pape Cheikh Diallo merci beaucoup ci invitation bi euh, ñi ngi nuyu bu baax a baax suñu clients yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre donc à travers la TFM di nuyu aussi suñu ñi nga xam ne ñoom ñooñu def confiance ci méga yu di jouer booba tey mm-hmm. donc méga yu nag comme ni nga xamee c'est un jeu de culture générale bi mën a tax client bi bi abonné wu à partir win au mm-hmm. wala mu tàppe dièse mm-hmm. mu mën a répondre à des questions di gagner chaque jour 100 000 francs chaque chaque trois mois ñu joxe benn Toyota Starlet bu bees tàq ak CFAO. Mhm. waaye itam li ñëpp di xaar mooy la villa Calia. kër gi de trois cent soixante cinq mètres carrés. waaw voilà donc nag tey nag dama am ñaari gan mais kenn ki laa njëkk a mhm. présenté mooy mhm. monsieur Djiba nga xam ne moo gagné un million de francs CFA keroog moom la woon téléphone. tey mi ngi nii pour confirmer ni effectivement c' est notre heure de gagnant monsieur Djiba. asalaamaaleykum. <laughs> un million dafa neex ji baax. <laughs> waaw dafa neex dëkk bu metti bi fi surtout fi mu lay jëlee. barki yàlla nga am un million. waaw bon maa ngi nuyu ñëpp fi nekk. Uh-huh. nuyu Pape Cheikh nuyu Mamadou. dama ci doon foodaal daal ba gagné. waaw. dañ ma envoyé vingt deux sept euh, vingt deux. Mm-hmm. méga win su ma jëndee crédit rek ñu may envoyé. ci ay questions. saa yoo jëndee crédit rek joué culture générale. mën a ah. naa ci foo rek. mais comme ça rek. noonu laa uh-huh. ko gagné. Uh-huh. question yomb na wala yombul. bon ça dépend rek. ay genre la rek ban question nga ci jàpp par exemple nii dans la foulée jox ñu benn question parce que question. culture générale la. mun nañ la laaj tegal la nee la quelle la capital du. di Ghana. Eh, loolu dafa yomb ay affaire yu demee. non parfois nga demee ay jax. <laughs> ay jax bon eh bien je vous remercie. Uh-huh. di ñaanal Orange. yàlla na jëm kanam. amiin amiin merci beaucoup bon di inciter les sénégalais clients Orange. Uh-huh. ñu jouer ci jeu bi. quand même c'est très intéressant. quand même c'est tout simple. tu envoies SMS. 22 7 22. très simple mooy turbozone euh, la la ah, mooy gis nga moo tax moom mu gagné chèque am mhm. mën na gagné kër gi. comme oto bi waaj ñëw. kon aussi moom lu gën a continuer jouer. amiin yow mi nga xam ne yéen ñuy seetaan. na tàppee léegi seen téléphone dièse 111 dièse 228 mhm. dièse. Mhm. simplement ngeen envoyé SMS WIN WIN tey nag dañoo dañu ponkal maanaam invité VIP mooy ki nga xam nga kër gi ñu ngi koy wax mais ñu bëri léegi il pas réalisé. Uh-huh. mais kër dafa rëy. un million rek doyoon na. waaw mais xam nga oto rek doyoon na quoi. mais kër kenn gëmul ni orange dafay maye kër. clé képp clé en main. Uh-huh. te Kalia ñëpp xam nañu ko aussi qualité production bi ñuy def. Kalia uh-huh. je pense que kenn dootu ko présenté. vidéo bi jàll léegi nii. ñu ngi doon remise bi ñu doon def. donc nag tugu leen teew ñu nataal Babacar Diop Faye mi jóge ba Mbour kii moo gagné woon kër gi nga xam ne këru daaw bi moo ko gagné woon voilà il est là naa la waaw kër ak ni mu defee am waaw nga joué méga win rek gagné kër mais wax ñu noonu def ba gagné kër gi daaw euh, salaamaaleykum euh, di leen nuyu di leen sant tamit di sant waa Orange yi mhm. euh, di leen wax ne maanaam que juste que jeu laa ko jàppe woon Euh, un jour dama toog euh, waa Orange euh, yónnee ma jeu 22 7 22. ma tenté jàppee woon ko maam comme benn genre culture générale bi nga xamante ni foo laa ko jàppe woon daal. parce que da ngay quoi. loolu laa ko jàppe woon saay mooy envoyé question ma répondre bàyyi mu dem. Mhm. un jour ñu woo ma ne ma kat da ngaa gagné le <laughs> juste que Efrayon euh, na maam kontaan naa dañ la ah, woo téléphone téléphone lañ la woo biñ la wooyee da ngaa toog da ngaa taxaw da ngaa tëdd wala da ngaa jonkan ndax am am yaa gañ a kër loolu c'est c'est incroyable quoi c'est une maison damaa taxawoon mais euh, maa ngi woon ci benn euh, wetu table nga toog damaa mujjee desandiku ci da ngay jafandu kay <laughs> nag ce qui est plus intéressant c'est que moom Dakar la xam ne kër la gagné parce que dañu takkoon bëti mhm. il savait pas ce qu'il a gagné en fait ah il savait pas c'est une surprise donc dafa ñëw moo tax vidéo boobu di jàll ngeen gis noonu dañoo takk bëti ah. ànd ak moom xamul fa lañ koy yóbbu yéen waa orange da ngeen garaawaale de yóbbu ko nag ba ci devant la maison. waaw ñu ne ko kër gi yaa ko gagné kër de 200 mètres boo xam ni clé en main peinture électricité. ana kër gi. tàngal kaw tëxu nga. mi ngi waajal te célibataire moom mais mais mi ngi waajal. tuxoo ko. maa ngi ciy yoon bi ngi waajal rek. <laughs> nag fii nii moom. <laughs> Mm-hmm. a am na ñoo xam ne gagné nañ un million dañoo investir ci ay projet am ñu gagné ay mm-hmm. am na ñoo xam ne gagné nañ ay kër. te loolu vraiment c' grâce au jeu méga win donc win au mooy li nga xam ne mooy deal bi mhm. donc yow mi nga xam ne yaay seetaan émission bi t'appelles rapidement sa portable win nga envoyé ko par SMS au vraiment ñu ngi remercier aussi l'huissier nga xam ne tout le temps mooy ànd ñu ci tirage yi merci beaucoup euh, mm. cabinet maître Wende Dieng donc rendez en tout cas incha très bientôt mm-hmm. pour le tirage de la quatrième voiture mm-hmm. mais

moo tax nag rapidement tous les clients dañu war am compte Orange Money déjà mhm. parce que Orange Money mooy calpe bi wóor aussi donc soo amee compte Orange Money nga déplafonné ko mhm. bu ko defee soo mën a jël 1 million nga dem retiré ko sans problème mhm. donc clients yi ñëpp ñu ngi soññ ngeen ñu ubbi seen compte Orange Money déplafonné ko continuer di jouer ngir chaque semaine rek ñu mën leen invité fii incha allah merci Mamadou Ndaw félicitations aux gagnants maître yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax donc continuer de jouer grâce ak euh, Orange méga win bi jeexagul ñu ngi jëm nag euh, ci jeexital bi parce que am na beneen kër boo xam ne teg nañu ko euh, pour clients yu Orange continuer de jouer da ngeen di yónnee euh, win win euh, ci 22 7 22 bu ko defee ngeen nekk euh, millionnaire u semaine bi grâce ak orange bi nga xamante ni moom la ñu àndal ci midi plus on va poursuivre cette émission je rappelle encore que dans quelques minutes dinañu recevoir suñu gan puisque ñun moom on reçoit tout le monde voilà Sénégal dafa bëri ay mbir yoo xamante ni il faut qu'on en parle te yooyu dafa bokk Euh, ci yi ma tuddee ces trains qui arrivent à l'heure donc euh, euh, Maki Madiba Silla co-réalisateur d'un grand film bu ñu jagleel ki nga xamee ni moo di Laba Socé sera avec nous ci plateau bi et puis laata muy ñëw dinañu ànd ak ki nga xamee ni moo di naata soxna naata moo ñuy présenté journalu diggu bëccëg gi maa la seen sànq ngay wiccaxu ci mbedd bi di doser mais y pas de souci je suis très contente retrouver Naata euh, bu ca kanamee euh, dinañu dem Tiwaawan waaye laata Tiwaawan di nga ñëwaat mhm. euh, ci coow li ñu tuddee affaire Simon ak mbiru passeport yi Mhm. effectivement Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi seetaan télévision Futur Média na ko waxee noonu la bokk na ci ponk yi ñu nar a yaatal bu 13h jotee mbirum euh, kilifa ak Simon Kouka àttekat bi ci kanam tuuti nag fas yéene naa joxe verdictam euh, ci euh, càkkutéef bi tukkee ci seenu avocat ka leen di layal mooy ñu may leen ab bàyyi nëgandiku xam naa ci kanam tuuti rek incha allah dinañ ci am yeneen xibaar yu gën a leer beneen ponk bi mooy Serigne Tiwaawan jël dogal ni euh, jumaa yëpp dinañu ubbi euh, waat dooree ko aljuma gi ñu dëgmal ginnaaw ñaar fukki weer yu ñu tëjee euh, mu di dogal boo xamante ni sax booy seetlu aljuma jee weesu ju julli juma bi amaloon nañ ko ci juma bu Serigne Babacar si ak xarara xadaratul juma mu mel ni rek mbas mi moom moo fi jaar waaye ci kanam tuuti dinañ wax lan moo waral lu ni mel Pape Cheikh incha allah. mu nga kon naata next time. Inshallah. <laughs> See you next. <laughs> yep. <laughs> Thank you so saa yi ma débrouillé ci anglais bi di lu ngeen foog xaw na maa jàng di mu ngoog naata ñu ngi koy gërëm bu baax euh, sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te ànd ko ku gis nga bërki démb àjjuma bi ñu wonee nataal yi ci euh, euh, jumaa ji ñu ibbi fa Tiwaawan xool yëpp sedd xool yëpp sedd donc ñu ngi ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér man nag sama péete mooy sama papa sëriñ Maodo si moom maam Abdou Aziz si da Dabaax Bakkarek dara maan aram loo Kumba Caam mbañ pend paate pend bëgguma pend xaar yàlla bopp coor si di faagay demb mi ci jawaar yar yar gi rek doy na waxuma ak baatin gi ak ñaan gi ak teraanga yi nga xam ne parfum bi bu jeexee sax ma ne ko papa parfum ba jeex na mu jox ko livreur bi ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom yàlla na ko suñu borom dëgëral sëñ Serigne Maodo si kenn amul fayam euh, dañu naan la ca maam sët da koy jël waaye fa ko ba tegoon jógu fa ba tey mu ngi sëriñ Maodo si silwise sëriñ Maodo si yiiw sëriñ Maodo si oyof yàlla suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam suñu papa suñu xarit man du du sama sëriñ sama xarit la boo ko fekkee fii ci château bi eh, ci boori virage boo bëggee toog suuf sax daf lay yëkkati te la toogal sama wet ay ay ay ay ay comportement wu humilité yoo xamee ni dafa ne ci eh, tarixa cheikh te moom daf koy prôné yaru bienveillance tolérance bi ñuy waxtaane depuis sànq nga xam ne tey mooy journée internationale euh, de la tolérance tolérance dafa fekk baax ci ëttam moom Serigne Maodo si lu ma bëgg a wax ci moom xeet nag du ma doyal sumay commentaire ci moom ci télé yeeg rajo yi waaye yàlla na fi yàgg te ànd ko wér ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, mook euh, njabootam n'oubliez pas que désormais <laughs> lii mooy coq à l'âne ah, damaa jóge Tivaouane ñëw ci àddina Youssou nduur ak bandam bi mbalax la ko tuddee désormais vous avez la possibilité ngeen jënd ko ak seen calpe Orange Money oui calpe Orange Money moo leen di permettre euh, ngeen euh, télécharger de façon légale album bi Youssou nduur génnee tuddee ko euh, mbalax si tout va bien si tout va bien Youssou jàpp na ay datam le 25 décembre ak le 1er janvier on vous donnera toutes les infos yoo xamante ni am nañ ko ci en attendant euh, Pape Samba baaxee ma benn Viviane mënul ñàkk ci samay yëf euh, la reine du Jolof Band souvent je Sénégal am na yu Ndour roi du mbalax mais am na ñu Viviane reine du mbalax bërki démb rek toj na Côte d'Ivoire Abidjan saa yu fa saa yu fa Viviane demee day mel ni comme si euh, moom foofu la fekk baax quoi on l'accueille ak honneur yëpp dañu koy accueillir en superstar ci palais des congrès bu Abidjan def na fa spectacle boo xamante ni guichet fermé la woon moom Viviane et puis li ci neex mooy bi mu yegsee euh, veillu spectacle bi dañu ko accueillir voilà ko à sa juste valeur et c'était magnifique lii mooy single bi mu mujjee génnee moom Viviane j'ai même des infos ci ay projets yoo xamante ni moo ngi koy préparé mais je dirai rien on va écouter cette chanson teeyal la ko tuddee dégg teel rek ni damm na euh, lu fi jar ngeen di daw bay daanu ah, ay mbir la yoo xamante ni daal bu ko dégloo tu te que xale bi miin na réew mi ndax ni réew mi doxee rek loolu lay doxee ci ay woyam a très beau titre qui cartonne teyel la ko tuddee Viviane Chidid the Queen. très beau titre euh, Viviane pourquoi may wax Youssou Ndour ma xala album bi dafa toj dëkk bi mbalax mais Viviane aussi elle cartonne mu ngi préparer album mu ngi préparé. mais loolu euh, secret la bu may partagé ak yéen. voilà bu leen ko wax kenn mais Viviane prépare de de beaucoup de surprises yoo xamante ni pour mélomanes yi la euh, woy bi nag ñu ngi ciy bëggal suñu xarit yëpp ak fu ngeen mënti nekk surtout ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire euh, puisque bërki démb ci spectacle bi mu fa doon amal c'était magnifique on reçoit maintenant notre invité euh, Macky Sall non <laughs> Macky Silla Madiba euh, Macky Madiba Silla voilà c'est un c'est un c'est un jeune Sénégalais qui aime le Sénégal parce que mën nga nekk sénégalais te doo bëgg Sénégal preuve bi nag mooy documentaire bi mu co-réalisé Euh, jagleel ko Laba Sossé premier disque d'or africain premier disque d'or sénégalais euh, il vient nous voir pour parler euh, de cette belle production qu'on verra peut-être prochainement ci écran yu Sénégal yi Macky merci d'être là kontaan nañu félicitations encore ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi waaw parfait merci ci Sénégal mm. et puis bon di am plaisir ñëwaat si si suñu kër. en tant que artiste parce que TFM këru artiste yi la. et puis di féliciter aussi grand bi si album bu bees bi mu génnee. waaw commencé naa si dégg ay quelques sons yooyu xaw a pàccaat yi wala. non kon après il faut que may la CD. ah avec plaisir non non je te conseille d'acheter le CD. ah voilà je vais acheter et tu vas me tu vas m'offrir hein je vais euh, acheter. mais est-ce que est-ce que di nga ma di nga ma di nga ma offrir documentaire bi ma diffuser ko gratuitement. <laughs> mais voilà Youssou aussi hein. Euh, il a dépensé beaucoup d'argent pour ah, ça. mais je vais acheter. da ngay jënd benn ñu jox la benn. di nga jënd benn quand même d'accord bon ce que def da ngay jënd benn album ma may la affiche. all right voilà mun naa la may affiche. sax ma may la ko comme ça nga yóbbaale ko. on n'est pas là pour parler de Youssou mm. mais pour parler de ce documentaire. Mm-hmm. pourquoi Lamba Sossé c'est-à-dire c'est la question que. tout que presque tout le monde se pose. Mm-hmm. Euh, d'abord t'es un jeune mm-hmm. peut-être fekkewuloo génération euh, euh, Lamba Sossé mais gëstu nga ba génne documentaire boo xamante ni les gens qui ont eu la chance de regarder ça dañu apprécier et c'est magnifique quoi pourquoi Laba Socé waaw justement parce que euh, dama ma dama sentiroon benn benn vide mhm. parce que pour man rôle rôle artiste parce que je suis musicien en même temps. Mhm. peut-être loolu moo tax ma am sensibilité peut-être euh, en tant qu'artiste musicien et réalisateur aussi. Mhm. dama bëggoon wone lu suñu papa yi doon dund ñoom bi ñu nekkee jeune ak suñu yaay yi je voulais en fait faire un bon. non pas vers le futur mais vers le passé. vers dire indi loo xamante ne ñun suñu yaay yi suñu papa ñoom bu ñu nekkee jeune musique la ñu doon mhm. parce les années soixante soixante dafa nekk pour man <clears throat> énigme benn inconnu. parce que fii Afrique amuñu culture. di xool la la ban musique la suñu papa yi doon déglu. suñu ils ont été des adolescents aussi ils ont été à l'université et je me suis rendu compte que ñëpp même chose dañu wax à l'époque la première musique bu egg Sénégal fii c'est la musique afro-cubaine. Mhm. on n'est pas là pour parler de Youssou Ndour mais même lui. il a commencé. par la musique afro-cubaine comme ñoom ñëpp les Thione Seck ñoom Ndiouga Dieng Mar Seck toute cette génération mm-hmm. les les Medoune Diallo dama bëggoon à travers Laba Sossé que je raconte un petit l'histoire de la musique sénégalaise pour créer ce qu'on appelle une transgénérationnalité mm-hmm. entre les générations mooy ñun suñu génération comme tu dis mm-hmm. mais yow wóor na ma sa papa déglu na salsa à l'époque déglu na musique afro-cubaine ñun tam déglu nañ ko <laughs> mais surtout mm. avec Laba Sossé li mu doon représenté en tant qu'artiste premier disque d'or de musique afro-cubaine mhm. et puis jaar-jaaram jóge Gambie judo Gambie après ñëw Sénégal mhm. euh, Sénégal mu dem Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mu def toute la sous-région par mhm. pare cubain yi seen bopp gis ko ñëw jël ko Roberto Torres le plus grand producteur de l'époque jël ko produire ko moom ak Mongito Mongito on l'appelait el unico maanaam l'unique tellement que lu muy def daf ko def ci xarañoon ñoo ñoo produire la basse sauté la basse sauté nekk États-Unis di dem ay Miami di wër adduna ay Canada à l'époque ba ma découvrir loolu loolu loolu moo ma mais Pourquoi on parle jamais de lui? Pourquoi on de a fait comme s'il avait disparu dans les radios, comme s'il avait jamais existé. Ah. Maintenant nag c'est une façon pour moi de le non mais aussi documenter dafa am solo. Ah. maanaam day day fixer dans le patrimoine euh, un legs un héritage boo xamante ne tey jeunes yi mooy ñi nga xamante ne tey ay Wally Seck la ñu wala ay keneen ak keneen ñu mën a xam aussi qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé avant c'est ça le rôle du cinéma cinéma day fixer dans le patrimoine xam nga loo xamante ne dafa passé yow nga indiwaat ko voilà donc il faut ñu delluwaat démb parce que démb moo tax ñu naan tey c'est dommage que fi waxtaan bi neexee je me rends compte qu'il est 12 priorité au journal et que rédaction baa ngi taxaw euh, pour jotaayu xibaar diggu bëccëg gi juste après journal bi ñu àggali waxtaan bi ak euh, Macky Madiba Sylla un très bon documentaire mu réalisé ko euh, jagleel ko ki nga xamante ni moo di Lamba Socé xam naa benn grand Pape Cissé il va être content parce que moom c'est un vieux hein Euh, euh, Pape Cissé il va être content et moi je suis très content aussi parce que euh, dama bëgg démb Laba Sossé j'ai eu la chance avant muy dee ma def ak moom benn émission qui s'appelait Star en ligne à l'époque 2003 la woon sur 2S mu nekkoon nit ku exceptionnel donc tout lépp lu nekk ci secret wu carrière am euh, moom Macky euh, daf ko nettali à travers euh, documentaire bi dinañ leen ci woon extrait et puis on va continuer de raconter ces histoires de documentaire bi juste après journal bi en attendant une page de pub et puis on se retrouve juste après